Mamadou Sy Albert analyste politique ci bu mu jokkoo bi ñu ngi lay nuyu. waaw ni ñu ko waxee sànq rek ci tubaab dañ koy euh, tàmbali ak déclaration candidature dem ci élection présidentielle atum 2024 euh, gannaaw euh, leader Pastef Ousmane Sonko Malick Gakou ci week-end bi am na yeneen ñaar yu ci ñëw bokk muy maître Abdoulaye Tine ak kii di docteur Abdourahmane Diouf jóge na Aar Sénégal ci noonee moom it Euh, annoncé na candidature am pour euh, atum 2024 euh, ci jongante élection présidentielle yi yooyu les déclaration de candidature ndax nekkul lu teel déedéet bu dee bu dee élection présidentielle lu lu xaw a jafe la nekk njiitu njiitu réew dafa laaj dafa laaj préparation te loolu préparation bi mën na mën na dem ba at wala li ko weesu ndaxte pour nekk candidat dëgg-dëgg il faut nga am partie wala nga am mouvement donc il faut nga mën a am euh, ay équipe équipe yi nga xam ne mooy sa équipe de campagne bon loolu dafa laaj temps nga nga jël xool bu baax a baax ñan ngay àndal kan ngay àndal fa fan la a féete organisation bu rëy la laaj donc loolu dafa laaj euh, jot euh, nga am temps mais ñaareel bi aussi mooy wuti les moyens les moyens financier campagne présidentielle dafa laaj euh, nga am euh, nga am nga am des moyens financiers loolu pour nga dem wuti ji xaalis il faut nga am projet il faut nga am ay partenaires il faut nga xool euh, naka ngay amee ressources yi bu dee ci cotisation su dee ci parti nga nekk wala ci mouvement nga nekk bu dee ay partenaires yi nga xam ne dañ lay jàppal donc préparation bi moo laaj loolu Euh, defe naa daal euh, ñoom ñëpp soo xoolee sax bu baax a baax dañu wax ne que deux mille vingt quatre soriwul campagne bi soriwul fii ak euh, fin décembre à partir de fii ak ñaari weer ñetti weer képp koo xam ne fas yéene nekk candidat dina dugg ci campagne électorale bi cam présidentielle moo ko laaj ñoom ñëpp xam nañ ne que que dafa laaj préparation bu rëy bu rëy bu dee bugg bu wut moom jiitu nekk njiitu Sénégal il faut nga teel a teel a mhm. euh, ñu wax ci euh, déclaration politique générale bu premier ministre euh, Amadou Ba ci week-end bi ñu ngi dégg Doudou Wade nee na yenn dëkk yi tey dañ lay élire premier ministre lundi mercredi nga daal def sa déclaration de politique générale moom bosam wax na ko fii ba décembre décembre la ko fas yéene def lan moo nga lan nga jàpp ni moo expliquer retard bi. waaw retard bi lu euh, ko expliquer en tout cas loolu li nga xam ne lii wóor na mooy euh, président Macky Sall euh, dafa jël dafa jël temps bu bari bu bari bu bari ndaxte boo xoolee supprimé woon poste bi après indiwaat poste bi toog lu yàgg lu yàgg mu ne day xaar local local yi ñëw mu ne day xaar yi temps bi mu perte foofu noonu loolu moo ko dabaat tey ji Euh, de de te gën a diis ci moom parce que boo xoolee assemblée ni mu tëddee euh, bennoo amul majorité am na jafe-jafe pour def euh, former gouvernement bi donc loolu yëpp mooy mooy président ni mu liggéeyee ni mu organiser liggéeyam depuis élection législative loolu mooy première difficulté bu bu gouvernement bi am Euh, ñaareel bi aussi mooy euh, démarche bi démarche bi xamuñu dëgg dëgg dëgg dëgg plan de travail la Amadou Ba am gouvernement bi euh, ban plan de travail assemblée bi am donc loolu problème d'organisation la la ñu am mais bu doon yoon bu doon yoon bi ñu tànnee premier ministre mu créer gouvernement premier ministre dañ ko waroon jox au moins deux semaines mu ne la defal ñu déclaration de politique générale loolu mooy yoon. Mhm. mais mais loolu bon dafa laaj euh, quand président bàyyi premier ministre bi liggéey ak xelam mu dal euh, mu mën a liggéey ak président mën a liggéey ak assemblée loolu mooy calendrier républicain mais malheureusement bon président moo moo moo aaki moo pouvoir exécutif bi moo yël pouvoir législatif ce qui fait que premier ministre bi bon euh, amagul en tout cas liberté bi mu waroon am pour nekk premier ministre nekk chef de gouvernement. Mm-hmm. Euh, ñu ngi wax déjà gouvernement d'attaque ba ñu taxawalee gouvernement bu yees bi te déclaration politique général mi ngi yeex naka la mën a impacter liggéey bi. mais gouvernement su mu nekk nii euh, def na premier ministre bi nañ ko bàyyi mu liggéey. Euh, président ni mu amee fonction am comme président la république premier ministre dafa am fonction tant que premier ministre bi amul déclaration de politique générale am vision am mën a dem wax ak président de euh, président la république Macky Sall mën a wax ak assemblée du du ñu dem loolu il faut que ñu ñu ñu xam ne que institution mooy fonctionner noonu. Hmm. suñ ko joxoon liberté am mu am feuille de route. mu dem wax ak euh, assemblée wax ak président wax ak sénégalais yi mais fii ak six mois ñu bàyyi ko mu liggéey bon tant que amuñu euh, li euh, amuñu feuille de boobu defe naa dina dina dina jafe lool lool pour pour gouvernement bi mën a liggéey comme ni mu waroon liggéey. Mm-hmm. Euh, ñu wax ci coalition Benno Bokk Yaakaar jamono ji avis dafa mel ni euh, dafa partagé wu divisé wu euh, ci li nga xam ne moo di troisième candidature président de la République Macky Sall ñenn ñi ci biir Benno ñu ngi ci ànd ci wet ga ñeneen ñi ànduñu ci lan moo waral loolu ci biir Benno ba defe naa président président Macky moo moo moo indi loolu yëpp ndaxte moom mooy président la république mooy président APR mooy président Benno ñu ngi dem ci élection présidentielle élection présidentielle ñoom ñëpp tey ji kaddu Macky Sall la ñu xaar est-ce que dina nekk candidat wala du ne du nekk candidat nee na moom mënugul wax ci lool loolu moo indi blocage bi tey tey ji moo euh, moom président Macky Sall moo mën a libérer APR ak Benno tant que joxul ndigal wala mu jox décision am euh, loolu de de day indi jafe-jafe beneen difficulté bi nag mooy que président nangul toog waxtaan ak APR pour xool naka la APR wala war a taxawee ci présidentielle bi. Mhm. mais tant que amul débat ci biir APR ci ci biir Benno mais xiiroo ak ngaayoo mooy am te lu ñuy ragal mooy que bés su xaaree lu yàgg-yàgg bés bu mu déclaré que candidat la soo moytul APR dina am ay problème benn aussi euh, naka noonu mmh, d'accord Mamadou Sy Albert ñu ngi lay sant di la gërëm nga nekkoon suñu invité matinal di analyste politique maa ngi lay fay Sylvie jërëjëf